maa ngi tudd docteur Aminata tambay maa ngi faj ay xale ci hôpital Albert Royer Fann. loolu dafa am solo trop parce que bu ñu choisir HLM Grand Yoff c'est parce que zone la boo xamante ni bëri na nit bëri na ñoo xamante ni ñii am nañ moyen ñii amuñu moyen te ñu ci bëri dañoo am difficulté ay jafe-jafe pour am accès ci fee faj bi ñu bëgg am kon tey kii dafay am solo nga indil leen faj bi ba ci seen biir kër. te du faj bu mucc ayib lañ leen indil dañ leen indi ay ay ñoo xamante ne ku ci nekk ca la ngay nekk da cee xarañ je pense que xalaat naa ne population dinañ ci am njariñ njariñ torop ci ci liñ leen defaral tey. tey ñi fi dajee am na ay docteurs yoo xamante ne der lañuy ñuy faj ak feebaru der am ci ñoo xamante ne lépp loo xamante ne ci xale la mooy pédiatrie ñu ngi fi am ñoo xamante ne lépp lu ci jabet ak nit ñoo xamante ne ñoo am yaram am ay jafe-jafe ci lekkin yeeg yooyu ñu fi. am na ñoo xamante ni tamit jigéen la ñuy faj euh, am na ñoo xamante ni feebar lu wàllu góor a yooyu la ñuy faj am na ñoo xamante ni tamit dañ fay ñëw tey pour xarafal ak pour opérer ay malades yoo xamante ni dañoo amoon jafe-jafe pour ñu opérer leen ca hôpital ba. waaw ñi fi ñëw ñëpp tey dinañ leen seet ci seen wàllu yaram ba pare bu fekkee laaj na ñu jox leen ay garab dinañ leen jox garab. bu fekkee feebar la boo xamante ni laaj na ñu jàpp ñu def ko tey opéré dinañ leen mën a opéré bu fekkee feebar la boo xamante ni day laaj ñu seet leen hôpital ñun ñi dinañ leen seet hôpital après waaye lu ñu ci mën a def tey tey tey ñu ngi leen koy defal. tey ci xayma am nañ 382 malades te objectif bi mooy ci ñaari fan yi comme dañ fi nekk tey nekk fi suba bu ñu amee 1000 malades mooy objectif bi. mais tey ñu ngi ci 382 te njort nañ ni fii ak ngoon dinañ am lu mat 500 500 malades. suñu liggéey mooy faci faciliter euh, population bi euh, ba faju bi xaw a yomb si ñoom di leen jàppale ba tout le temps faju bi di gën a yomb si ñoom kon point bi nga xamante ne ni ministre bi indi na ko fi tey événement bi. vraiment ñun dañ koy dañ dañu gis ni c'est vraiment très positif parce que day ñëw di ñuy jàppale maanaam si suñu liggéey mooy dimbali population bi ba nga xamante ni fajo bi day gën a yomb si ñoom c'est pas la première fois ministre bi di def lu mel nii parce que bii defe moom mooy troisième fois bu mu fiy ñëw di ñu may ay consultation gratuite kon ñu ngi gis loolu ni vraiment c'est quelque chose de très positif te ñu ngi kontaan bu baax a baax waaw aussi kon ni ñu ko waxee rek communication bi déjà am na ay rajo locaux yoo xamante ni ñu ngi fii si zone bi jot nañ fa dem def ay annonce en même temps amoon na benn camion boo xamante ni tamit mi ngi fi pendant presque depuis démb ba léegi di wër si gox yi di annoncé gars yi di leen wax ni bon consultation gratuite am na fi te pathologie yi tamit yi nga xamante ni faj faj fajukaay yi bëri woon na fi trop defe naa communication bi jàllal bu baax en même temps tamit internet beeg ak média bi jaay jàllal nañ ko bu baax si partage ak statut yeeg yooyu daal. sabab bi mooy euh, jagleel population yi ñu gis ay docteurs yi nga xamante ni bu dee pour xale yi la ñu mën a gis docteurs yi bu dee pour jigéen ñu wéri lu la ñu ñu mën a gis docteurs yi bu dee problème mu bët la ak problème mu nopp ak euh, ba gorge ñu mën a gis docteurs yi. donc euh, li ko sabab mooy ministre moo ne woon HLM Grand Yoff fii zone la boo xamante ni bëri na ay nit ñoo xam ne peut-être buñ leen gis yenn docteurs yi mais mun nañu leen gis mu ne nañ organiser façon consultation bi dina permettre population yi ñuy mën a gis docteur yooyu yi nga xamante ni moom lañ soxla. waaw ku ne faj ci garab sa xel dem aussi ci li nga xam ne mooy suivi bi moo ci bi dina am parce que district bi lañ liggéeyal. parce que malade yëpp peut-être dina am ñoo xam ne da leen di yóbbuwaat pour opérer leen wala ñu war a def ay analyse ak yooyu noonu rajo sax am na mun nga def fii rajo mais li ëpp solo mooy après parce que am na ñu ñuy opérer pour suivi bi donc si district bi lañ leen di enregistrer bu jaree référé ñu yabal leen ñu dem ci district bi mais suivi bi moom district bi parce que ñoom lañ liggéeyal en étroite collaboration. may nañ garab. générique may nen garab tamit pour toutes les spécialités qui sont là spécialité bu fi nekk garabam am na fi donc ku ñu consulter ba pare dañu lay yebal ci pharmacie bi ñu may la garab bi war